daaw l'année dernière dañuy gis ne résultat yi tey moom wax dëgg yàlla am na différence tuuti xëy na nag am na lu ko lu ko waral mais nañu toog xaarandi ñu ngi nii ci commune bu Mewane di délibéré waaj a délibéré nañu xool ba xam suñu commune lan la ñuy jox tey ji mais yow Faty mu wuute googu aman daaw ak ren lan nga jàpp ni moo ko waral ba xam élèves yi dañoo jàngatul wala épreuve yi mooy difficile jàpp na ni daaw grève yi bari woon na jàppoon ni daaw grève yi woon na trop te amoon nañ ay résultats yu baax te ren tamit benn grève amul te jàpp nañu résultats yi baaxul ñu jàpp ni aussi tamit xëy na élèves yi ñoom ñoo bàyyi jàng ñoo jàngatul daal loolu lañ ko mën a jàppee daal. waaw kon séntu yàqul dara kon ñu séntu rek ba résultats yi génn ba xam ne muy demee après dinañ la invité waat ñu gën a yaatal ci loolu incha allah incha